fexoon na yoo soxor door tayit jëfee woo ñàkkoo xorom ñaaw doo maas ba ni tëkkale Sëriñ Mbàkke soxna la Sëriñ Mbàkke daa war tayit jëfe woo ña ko xorom ñaawuloo doo maas ba ñuy tëkkale gaynde la jur gu la wet mus la yiti ki soxlaa ki jaaxle kooka moo darale ay mbàkke moo tax ni nga ngir niru ku ko moy mi yuro yi ngalamba lamboo ko kook bari le ay mbàkke jàmbaari lislaam nga dis gor muñ ta talawet yaakaari ñëpp nga ndax doo gantu doo gënale danay tukkal moo di daal ngërëbu mbaax ya ñu gis yaa boot ñi baax ñi bon boot ñi mën ñi tële bokk ki jaam fi yow ku ñëw nga teral sëriñ Mbàkke soxna loo bay Seex Mustafa bokk ki jaam fi yow ku ñëw nga teral atap woomal nga doo jeexal te doo dikkile yow yaa di xir Cheikh Mbacke Cheikh Moustapha seen naal ya ngay àggale yaa yaatu yaa mën a muñ yaa noppi yaa bari jom Cheikh Moustapha toggu jox seex jox la ngay dënale ay Mbacke samaam ja cheikh musawa ak sa baay boo lañ la soroon yow yaa matal loola cey bur yàlla mën a berale ay mbàkke doo gàntu nit ci itam te doo ko war ci sa wax doo fate doo fakke doo dig nit muy dox bëtale yow kër gu sedd nga ndax ma ñetta door ak te fiix nga yaatu taset yaa baax ci waaju tele du jaw du warta du wax la li lu dul rafet fa bul jëmam teeg ci kaw kenn day muñ di bale ni ñu mbalaan bu jotul ño dee ko far di xaral yow yaari wet yi nga xam yëpp rafet matale ay mbàkke du jëf lu ñaaw du ko wax xebul ni mbokkam itam yow mënu jëf lu sew donnoo ko fii du fële ne ñu mbalaan bu jotul ñoddee ko far di xaral yow yaari wet yi nga am yëpp rafet matale yal na nga sax fii ci dunyaa ñetti junni baat baraw suwaay boo ki nooyin yàlla boo fitale mboolem sësër yu juddoogul ami sët fi sawet ngay mucc kay muccule kay baax kay darale yàllaa wa tànne ca tànneef yu baax yi fi gën nga dib gela war dib sanga sarale ay maake yàllaal tànne ca biir tànneef yu baax yi fi gën nga dib gela dib sang yaa sarale moo mën a teeru gan te xam taraanga balay sa kum yewwi nag ngërët baam yaraanga moo mën teeru gan te xam taraanga balay sa kum yewwi nag ngërët baam yaraanga moo mën teeru gan te xam taraanga balay sa kum yewi nëngërët baam yaranga Cheikh Mamadul Moustapha ma jóg sant yàlla gën ji yónneen ba Moustapha ci taawub Sëriñ Tuuba bi tuddee fi Moustapha ma jóg sant yàlla gën ji yónneen ba Moustapha ci taawub sëriñ tuuba bi tuddee fi mustapha kon tey dana alhamdulillahi wahdahu ala xutbi asal ji li leen musa ku doy doy war naa soxoo sant tey sikkar te kii doy na turwaay am di neexal wi mustapha ku naa man liggéeyal naa sëriñ bàmba wàcc naa dinaw ay jëfam yàlla naw nitam toppi Mustapha ndaxam taal bu yàllay taal sëriñ bàmba wut matam la koy fay amul jóg leen taxan yit ko Mustapha ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaa donnu Mustapha ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoow nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaa donnu Mustapha ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoow nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaa donnu Mustapha